asalaamaaleykum mbokk internet yi sédal suñ ay différentes plateformes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen way alors actualité oblige ndax euh, gis nañ li nga xamanteni moy li xew euh, ci mbirum justice muy l'arrestation de monsieur Doro Gueye on a bien choisi la personne avec qui on devait se parler pour mu defal ñu ay éclaircissement par rapport ak arrestation bi ni mu demee ndax fi mu ne version yi bari na wax ji bari na mais dañu toog ak koo xamante ni c'est son fervent défenseur Modou Délégué Amar le nouveau marié mhm. alors dañ koy nuyu ba pare bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi ñu soog dugg ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi délégué maa ngi lay siyaar maa ngi lay delloo siyaar Galo di jiital bi ak nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu ko te mu mu am ci yoonu Cheikhul Khadim mu matale ko te ànd ko taalibe yi di ko ñaan ci këru tariixa diine yëpp suñu borom yàggal leen kàttanal leen te dooleel leen ba yéene ji ñu am ci seen yoonu maam yi ñu matale ko di la siyaare di siyaare sa nootaango yi nga àndal ñëpp di baalu ñëpp àq te di leen baal àq jërëjëf alors euh, délégué félicitations encore ana soxna si merci beaucoup à toi merci beaucoup ana soxna fi mi ci jàmm ñu ngi koy dégg mu ngi ko dégg maanaam xanaa maa ngi koy dégg non nekku fi man sama jabar dëkkul fii sax kon Cheikh Ahmed Cissé am naa lu ma dégg mu wax de kon xoolal bul teel yàq sa émission ndax bëgg naa defal émission boo xam ne ku nekk dina ci jàngat àdduna. moo tax déglu rek déglu rek non non non non. am na y' a des non non non ni boo leen tuddee ci émission da ngay yàq sa émission continuer mais lan moo tax nga tuddee ko hypocrite. te ngaa wax sa émission li ñu fi yitteel. ci émission bi la amuñu amuñu jotu kooku. saa yi ñun ku nekkul ci réew mi dëggaloo sa bopp ci réew mi amuñu ci yow soxla. mais moom fii sa soxna dëkk la dëkk de. déggoo ma de saa yi dama ni ñun ku dëkk ci réew bi dëggal boppam ci réew mi assumer ay responsabilité ci réew mi koku lañ am sañ-sañ waxal voilà man dama ngi ci réew mi. mais tuma yim tek sa kaw lo ci wax. dama gën yonent bi. Hmm. non non gëmoo ko de. dama gën sëñ tuba gëmoo ko de. dama leena gën yeen ñi ay dooma aadama lañ comme comme yeen ni hmm. té mu teguñu la tuma yow. bari na kay kon jeex na tuma kay as gor rek lañ koy tek hmm. waaw. <laughs> d'accord. Euh, mais euh, il faut que ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo ñu fi dajale ñun ñëpp. Mhm. muy le cas de monsieur Doro Gueye. bu mhm. xam Doro xam la ak euh, ak ak que boo xoolee bu baax sax bu moytuwul da nga fi gis photom alors fang waaw ma ngi noonu ma nga nee na fang <laughs> donc après ko jël PC xam naa alors mhm. arrestation Doro Gueye naka nga ko yëgee. maa ngi nuyu ñëpp di ñëpp sama benn jigéen bu nekk Paris moom moo ma woo na mais damaa gis sa xarit bi. ki ngay dugal estati rek ñu ni dañ ko arrêté man ko arrêté mais koku mu ngi won mu ngi won Paris mais ñew na barki dembu arrêté bi mom weekend bi la ñew di arrêté bi nu démé nonu mu ne ma noo xoolal site moko tuddu moko bind bu tuddu Dakar ak ci xaw ma <coughs> duggu gis ko ma gëw tamit quoi ma am kuma wo mu ni ma dëgg la ci laay doog nak gëmé affaire bi ma taal sama auto dem fële nga xam modi di Colobane section de recherche xoliko yalla dogal ne ñu won pour man ko gis ndax gendarmerie mom bo xasse ba yor dossier enquête pour nga gis ki nga xamne nyom sever enquête day jafé ndax ñom dañoo sévère te dañoo euh, dañoo xarañ ci li ñuy def dal manam gisunu ko ma ñibbisiwaat waat bima xeye ma wo ki nga xamne moma joxone ma information bi ne ko may deug la mu wax ci wax ju rafet momit te man mom ñi nga xamanté jappalé Ousmane Sonko muy soxna so xamne bëgg Ousmane Sonko la nekk ba Paris di jappalé Ousmane Sonko ci lu bari bi loolu amee ma xëy suba tamit gis gars yi ci internet bi ku nekk di dugal fenkat yi nekkee fee xotteekukat yi nekkee fee meemkat yi nekkee fee ku nekk di wax loo maîtriser wul. Mm-hmm. ci dossier boo xamante ne nii sax enquête bi jëmagul ci kaw ah am na journaliste yoo xamante ne nii que sax ña ngay wax ci dossier boo xam ne enquête bi jëma jëmagul kaw nit ki biñ ko jàppee bi mu fa demee léegi matugul quatre heures de temps nga bëgg a wax ba ci biir dossier bi mm-hmm. loolu mooy lan. Mm-hmm. du kuñ jàpp di la enquête te defagoo sax deux quatre heures de temps ca fañ la jàpp journaliste yi génn am ñoo xam ne di génn di nderlee ko rek naan lii la lii la lii la te lépp ay fen la mm-hmm. dañu defaraat jikko yi. mais ñoom ci plainte bi la ñu waxee délégué. fenuñu parce que li nga ni waral plainte bi. arrestation bi non plainte nag kaay wax la. Mm. plainte këkk bind. at at at kam ko jox. rek mën a xam la ci plainte bi. journaliste am na am na pour euh, am source am. par rapport ak génne leen ko non non non pas ay source génne la ci plainte bi nangam nangam xam nga ñi ñi wax waxuñu sax la ci plainte bi. la ñu wax. ay waxi dof rek lañ doon wax. jàpp nañ ko sàcc na ay suufat nangaman nangamat nangaman nangam te yooyu yëpp c'est faux. Hmm. plainte dafa am ci diggante parti civil ak parti civile ñaari parti civile la du affaire am na nañu sax affaire de état ñaari parti civile yu seq seen business. yoonu état nekku ca am déet mm-hmm. bu fekkoon ne yoonu état moo ca nekk dañ naan kon de kii suufu état bi daal jël na ko jaay nañ ko xaalisu état bi jël nañ ko jox ko ko mais nit la amal plaignant kooku am na sañ-sañu dem porter ko plainte jël na ay dossier am dem na def li nga xam ne yoon may na ko muy porter plainte fële ci gendarmerie gendarmerie tamit ñëw nañ def seen seen liggéey mooy lan fekk nañ ki nga xam ne moom lañ porter plainte jox ko convocation boo xamante ne nii ci tàng-tàng bi ngay wuy ji xam loolu sañ-sañ boobu ñoo am nañ ko man loolu def nañ ma ko mandat ne lañ koy wooye maanaam kut koo kut da ngay joxe ñu joxe nga signé ànd ak ñoom dem mm-hmm. ñu jox ko ko waaw ñu jox ko ko mu dem mm-hmm. wuy ji mm-hmm. waa léegi ka wuy ji moom ma nga ca biir kenn mënu koo jot téléphone ñun mënuñu koo jot téléphone am na ñoo xam ne sax mënuñu koo jot téléphone léegi bëgg a xam la ca biir dossier ba nañ waxtaan dëgg rek kàllu nag nit loolu nekk nekk journaliste am na yenn euh, secret yoo xam ne enquêteur du ko génne di ko wax. mais PV bi journaliste mën na si jot délégué. xanaa bu demee tribunal bañ àtte ko wala nangam ñu taf PV bi sa nangam amul amul benn PV boo xamante ne nii que homme d'affaires wala PV civil sax maanaam koo xam ne maanaam comme sama genre gi sax sama PV yow sañ-sañ dem di ko vérifier di xool sama avocat pa bi sax amul sañ-sañ bi ki fa yóbbu amul sañ-sañu dem di vérifier sa PV xanaa xam mooy sa yaay yoon tamit yéen te galo jàng nga moo tax ma lay wax loolu. moo tax ma ne non non non non non non non non loolu amul fenn journaliste amul sañ-sañu eh, dem fekk PV ba xam ba xam léegi léegi nan lañ def nan lañ def ba xam léegi nan lañ def ba xam li nga xamante ni mooy problème bi am si diggante Doro Gaye waaw mais loolu c'est normal parce que tey su fekkee ne man avocat Doro Gaye laa mhm. an am samay nitu Doro Gaye yoo xam ne ña nga fa ma dem fekkee mbir mi ma génn wax ne la galo de ah sa waay de lii lañ koy toppee lii lañ koy toppee kama ko wax bu def fenkat la day génn wax ko wax ja tasaaroo kon daal yow lañ nettali ay fen la. non dama ni tey jii bu fekkee ne dañ ma dañ ma eh, avocat Doro Gueye dafa génn ne. Doro de waa Doro gee dañ ko jàppee lii àlli wax ko benn nit. Hmm. nit kooku wax ko keneen. Hmm. waaw kooku bu nekkee day tas. waaw ah, kon kay bul liñ ko jàppee. non non non non waxuma liñ ko jàppee du yoon de waxuma liñ ko jàppee dama ni daa am journaliste yoo xam ne wax nañ loo xam ne lépp ay fen la. Hmm. waxuma la liñ ko jàppee de d'accord affaire de terrain la. nit la amal problème ci mbirum jënd ak njaay. kooku mu amal problème nag lenn dong lañ ci man mooy ñaan ko li nga xam ne moom am na ci droit mooy moom am na sañ-sañu toog ne nañ ma jox temps deseel ma temps ma retiré sama plainte ñu def ko ñu defal ko loolu mhm. mais nag yoon du te yoon bu fekkee yoon day def liggéeyam ci kaw Doro Gaye da koy def mhm. kenn mënu ko koo tere waaye yoon it am na sañ-sañu jël Doro Gaye may ko liberté provisoire ànd président bi ci li mu wax mhm. kon ci lu ñu wax ni dooro dafa jéem a fexe avant 500 millions pour après mu joxe le reste lu am la. non non non non gis nga man xawma ci loolu dara ndax amul bu fekkoon nekk Doro dañ xaalis bii bu ko joxee ñu bàyyi ko walla nangam du fa fanaanaat tey am na ay nitam yoo xam ne ji na leen daraanga am na maanaam laa cité benn tur ba depuis démb waalee ngi foofu. depuis démb laa la wax waalee ngi euh, gendarmerie jóge gendarmerie tey waale fajar la dem nelawut noonu la ko ne dem tribunal mën naa wax ne sa waale moo jiitu sa dooro Gueye tribunal mhm. tey bu fekkoon ne dañ ne takk ah gars yi lii temps la temps moo koy kii nañ ko génne Doro Gueye du laal sax xaalis duñ ko duñ sax soxla xaalis ñun ay nitam mën nañ koo dajale joxal ko ko ci ni mu njëkkee xaar nag yoon nan lay doxalee liggéeyam mhm. ndax yoon kenn du ko jiitu ci ci xawma lan lan lan mhm. parce que nak nit nag plaignant man na la bayyi mhm. retirer pelantam ngeen teg lu leer mhm. mais du tee yoon man na def liggéeyam mais nak ci kaw yoon gogu ñun ñi nga xam ay nitam lañu sañ ñoño ñaan plaignant sañ ñoño ñaan yoon ay jullit dool ay nit lañ te nit bu toñé amna droit sañ sañu ñaan japp nga ni dal mo mo toñ wa mais toñ la kay ah, bëgg jappé dafa jaay nit nit ki ne xaalisam nangam nangam yow mi boma jaayon sa micro bi ni ni mhm. ma lek sa xaalis bo ñëwee fayeeku ma te joxuma la bo demee ci yoon kay señ bi maal toñ toñ gi mu tooñ tax gaay yi di. Mhm. bu tooñu woon est-ce dinañ ko téye. légui dañu gis ben chèque bo xamanteni euh 1 milliard 200 francs la donc ñu ni door moko signé mais waji bimu démé di retirer xaalis bi. mënul jot chèque bi turu kan mo ci nek ya chèque bi gis nga ko. non turu kan mo ci nek non man ma lay laaj doo ma laaj. non dama lay laaj man xawma lu turu ko ci nek turu Doro mo mo ci nek turu Doro mo ci nek segom la carrément. waaw ah. sec moom sec dinañ ci bind un milliard. ah doy na gis de. waaw ah, loolu moom sa xunta xaw ma ci lu. sa xunta <laughs> waaw sec moom un milliard moom. bëri na bëri goo xam ne waaw ah. bëri na bëri goo xam ne. doy na waar mais man li may mën a wax galo mooy ñoo ngi ñaan ki nga xam ne moo di plaignant bi. Hmm. ak ki nga xam ne moo moo fi téye moo moom justice kii kilifa la yàlla moo ko def du ñun ñoo ko def. Hmm. yàlla moo ko seppi def ko muy kilifa. am nañ sañ-sañu ñaan ko hmm. li nga xam ne yomb na ci ñoom ci seen liggéey hmm. ñu may nu ko defal nu ko. mooy lan nan ko may li nga xam ne yoon may na leen ko ay ay buntu lu yu bëri yoo xam ne yoon may na ko nit ki. Hmm. mu dem ñibbi ci ak njabootam continuer liggéeyam at ñi nga xam ne ameel na leen ay ay ay salaire di leen ko fay ñooñu tey bu bu fekkee ne que am na gàllankoor bu tegu ci kawam ñu téye ko amaana ñooñu seen tumuraanke mën naa taxaw. alors dañoo dégg ci wax ci aussi euh, ñaari terrain la yoo xamante ni dañoo nekk fële ca euh, ginnaaw aéroport bu njëkk ba déjà foofu suuf si rek c'est ça coûte ñu wax que ni bi ko enquêteurs yi laajee dafa wax que ni président Macky Sall moo ko joxoon pour mu jaay ko mën a def ay li nga xamante ne mooy mission secrète d'abord. Euh, mission secrète jaaxal sénégalais. yow yow xam nga mission secrète loolu moo ñu jaaxal mission secrète. saa yéen man daal vraiment sama journaliste yi daal man vraiment xamatuma ban genre niveau ngeen am. ci bac xaw ma bac xaw BFM xaw lu ngeen am. xamal ñu rek non. Mhm. mission secrète xam nga mooy lan yow. secrète secrète. waaw. xanaa xamoo ne ñi mission secrète état bu fi mën di toog sax day liggéey yow. Mhm. ah mais ci kan la koy liggéeyal. non dama ni bu ko doon laa la wax. mais ci kan la koy liggéeyal xaw ko ko man xaw ma déggoo ma de. <laughs> tey jii bu ngeen toogee fi naan enquêteur bi dafa jël dafa wax ne que nangam a nangam yaa ko dégg ci gémmiñu enquêteur bi. mais dañu am ay sources. non non non bàyyi leen ay sources bàyyi leen source lañ benn gisu leen benn enquêteur non non non gisu leen benn enquêteur bu génn na leen. bi ma ko jàppee nee lii lay liggéey non non non waxtaan dëgg non gisoo leen enquêteur bu ngeen xam nga ne ma daaneel même ma leeral la tuuti dama lay dimbali tuuti rek ba ma dimbali waaw sursis boobu nga am dama lay boobu nga am sursis boobu nga am ay fen la ay kàcc la sursis boobu ay fen la ay kàcc la yow ah, nooy jàppee nit mu naan la ay agent agent la lan euh, lan secret lan mission secret xoolal yëfi caaxaan yooyu nga xam ne le petit journaliste la gel boobu moo koy nekk di ndellee ko boobu ba léegi di wax rek. mais ngoone yor ay sources waay waay il mais loolu la non non non non non déglu ma rek non non non non sama waay sa waay ñun ay nit lañu mais punitki. ma rek dañoo jàpp nit ki waa déglu ma rek dañoo jàpp nit ki ci mbirum jënd at njaay waa léegi ba muy jënd at njaay papier yi ñu signé turu Macky Sall dajaa nekk bu ci turu Macky Sall ne ko est-ce que peleñaa bi doo boole Macky Sall ci bi. mais ku jox suuf si. oh déggoo ma de déggoo ma de man suuf sanu jaayat sama kër lañ jaayat sama ngañ ñi nekkul ci loolu waaye dama ni bu fekkee nekk laa wax dañ ni moom moom moo ni Macky Sall ca la bokk waaye léegi lu tax peleñaa bi boolewut turam ci Macky Sall boolewu ci Macky Sall. man soo ma ma doon jaay terrain Macky la jox ma terrain ne la demal jaayal ma ko bu ma demee di ko jaay kat turu Macky Sall dina ci nekk de ci PV ci kii bi contrat bi ndax dina ni ko Macky Sall moom ma jaayloo terrain bi nanga man naa sëñ bi nañu waxtaan dëgg te yàlla tax mbirum terrain jënd at njaay la mu seqat waa ji nag ba ba seqat moom ci mbirum jënd at jaay ñoom ñaar la concerné waaye nag ñun ñi nga xam ne ay nitam lañu sañ nañoo toog ñaan ki nga xam ne moom la amal jafe te nag gaa yi ko yéene lii jombul kenn de le petit journaliste la jot laa na xam ne lii jomm ko de lii jomm ko as gor ab doomu aadama du yéene moroomu doomu aadamaam safaan ba sawaay fii ku fi nekk ca la nga nekk di ko def yaa ngay dóor moom amee na ay bor si oh, non deg ma rek dama ni man samay wax laa wax samay wax laa wax non samay wax laa wax de no, la ma sàmba no, la ma dem mais c'est notre conseil non non non non ma de non déglu ma tudd yow yaa fi tudd turu nit de samay samay wax laa wax dalo wa naa ko waaw yow yaa ko bëgg a jël wax ji moom la ko yéen yéen ñaar la concerné ñaar du ñaar la bu la ak xam la ni la am na yenn kàddu jom nga ko génne di ko jëmale ci ab julit waxuma laat julit waxuma la sax ay do ma adam parce que soxol du ag fofu nit man na def jafe-jafe nit ku nek ci la ngay liggéey bu la ci yalla tégué natou échec la jafe-jafe la ku ne lay dal han ah? président Diomaye ci limi liggéey di politique ci lako yalla tégué tegee nattu ko jox ko garaat am déet waaye mais da ngeen fekk door ñu japp ko ci doro da ngeen fekk ñu japp ko ci vel da ngeen fekk ñu def ko ñu nang lan lañ ko jappé da doon business ci ay business am affaire de souf jënd na jaay na nangam a nangam 1 milliard nangam sangam sangam lolu ku ne lay dal Natu nak ku ku japp ne ya koy tek doomu adama bi yaangi nax sa bop yalla moy jël natu tek ko ci kaw doomu adama bi doomu adama bi accepté ko ndax yalla ko tek yunit yalla yusufa mu lan la ko yalla tege natu viol lañ ko giñ ah wa bam genné yalla yokul gratam def ko ay dëtt def ko nangam nangam bam dem ba yor ba nek han ah bi kon yalla bu tege nit natu ñu dëkk ci dëkk bi te door bu du dara sax bu dé ben fan sax liggéel nako mi ci naka waaw bërki démb organiser wut fii ay mbëru làmb jox leen fi teg fi 10 million pour mbër yi gën a am gis seen bopp ci bopp biñ biñ téyee woon làmb ji làmb ji doxut am na wala amut waaw loolu di def jàppale sa réew prison bi bëri na ay euh, euh, affaire yu nu fa def ay ventilo ay euh, kaki yu ñu fa yokk moom moo ko fa def di loolu di jàppale sa sa sa réew. kon de xanaa moom waa xaaral rek déglu ma rek. non non dañuy waxtaan ay affaire dafa nekk du tàng dama lay wax nit ki tey man nga nit am sa alal di dóor say alal te doo ko bokkat askanu Sénégal waaye lu mu am ci alalam réew mi la ko bokkal Tiwaawan Kaolack laay njëkkee sax bi ñuy euh, euh, def euh, pour seen affaire juma bi 10 millions la fa joxe àddiya bi ñuy wax pour affaire juma bi Tiwaawan bu gàmmu jotee day yóbbu ay nag yóbbu xaalis bu takku yoon sëñ yoonu seexul xaddim ji tamit bu bis bi jotee kenn mënu ko ci man mii jox na ma koppar ba tàyyi pour yóbbu ko ci liggéeyal sëñ saaliw loolu laa mos a lekk ci alalam te alal ji sax lékkuma ko dama koo jël liggéeyal ci sëñ saaliw mais dooraa doora nii rek mu yëkkati alal jox ma ko ne ma lii maa barke leeru alxuraan mosul am bu amee yàlla naa ko fekk ji fam ne est-ce que comprendre nga. ci waawoon pourtant ñu bari dañuy jàpp ni xaalis bi. da koy séddale yéen ñi nga xam ne yéen a nekk waa show boo amee kaamil nga indi ko wala di ko jox euh, xale yu jigéen ñi ñuy chirurgie di voyager ay Dubaay ak yooyu. non loolu loolu loolu sama nga ñi nekku ci. Hmm. loolu moom la concerné bu ko neexee jël xaalisam sax wër ci mbedd mi fu nekk mu teg fa un million loolu moom la concerné mais dama ni man délégué Amara lu tax ma jàpp ko fonk ko tamit liggéeyab Serigne Saliou la ma fekk dooleel ma ci te liggéey Serigne Saliou ku ma ci fekk dooleel ma ma fonk la respecté la naw la beneen bi fi mu teg son excellence président jàmmi réew mi kese Kan mais kanta doora woo ma nii yëkkati alal ne ma li maa ko jox billahi wallahi wa ta'ala musul am waye fu xel kom jotee mu woma ma téléphone yëkkati koppar ne ma ligi dugaloo ma ko ci liggéey seigne salou wa koku ta buma amé ma jafé nak kenn du ko sama jafé jafé bu bi bii dooro nekkul Sénégal ma ngi won makka mais ma ngi mel ma ngi Sénégal lu ne mu daj ko fu ne mu woote fa ba sunu borom defal ma tawfiq wa koku bu amé jafé jafé ma tok na tër ma na fekk hein d'accord d'accord beneen bi dama doon wax te yeggalewu ma mhm. bi Serigne Mountakha Mbacké di woote ci université bi onze millions la fa yóbbu. waaw lu dañuy waxtaan rek dañu waxtaan rek waaw dama lay wax rek pour wax la ne moom alalam xaw ma fu ko mën di jëlee concerné wuñu waaye lu mu am rek bokk na ko réew mi. d'accord lu mu am bokk na ko réew mi jënd na fi ay moto pomp centaine moto pompe yóbbu ko Kër Sëñ Mountakha. d'accord léegi yow keroog si tam keroog si moto yi mu joxe booy booy Pikine yi fu mu ko jëlee. dooro moo ko jox ay moto ne ko joxal booy ñu liggéey waa mais loolu ñun tey jii loolu lañ gis ci moom la muy def nag fa muy jëlee xaalisam at la muy la muy liggéey loolu ñun concerné ñu loolu sunu ngañ nekku ca waaye am nañ sañ-sañu ñaan ki mu amal jafe-jafe am nañ sañ-sañu ñaan ki nga xam ne mooy fii toogal tey justice pour li nga xamne mom yom na ci ñom te ñu am ko te doole joj ñom la ko yalla jox ñu bàyyi ko mu ñibi kërëm alors ñu bàyyi ko mu ñibi kërëm nañ bàyyi yoon mu def li nga xam mooy liggéey mais avant bobu yow est ce que gis nga ko wala nga am ay information par rapport ak ki nga xamanteni mom moko moo ko porte plainte monsieur saw ndax joko nga ak wala gis nga ko wala xam nga ay proche am pour négociation bi nga xamanteni mom ngay ñaan ngeen def non man nak bima dembu demon na gendarmerie presque 17 h ba 21 h ma nga fa bi maître eladjou guéné né suba day dem jàkkaarloo procureur ci la taar sama oto ñibbi bi bi ma xëyee tey damaa yeewu tak dem falaa laa fekk son excellence président jàmmi mi mu toog ci otoom mu leer na la kii boo ko xoolee xam ne nelawut ndax moom buggul ndey ndeysaan nitam ku am nitam bu am jafe-jafe moom waale bi ma demee tey wax dëgg yàlla gis naa ko ci bureau ba ci fi mu nekk ca ca fañ ko téye mm-hmm. di kaaf boo ko gisee da koy ñeewantal ndax nit nag wax dëgg yàlla boo nee jàkk ni ki da xam ne kii nit ku baax la boko xolé tak rek bu fekkee am nga am nga xolub yermane nga am do fa sax bëgg taxaw di waxan mom. ndax dang koy ñewantal a ah, seen nga ko kon. deggul li ma ndax dang koy ñewantal ñewantal gi moy lan tay ki ñu ki ñu indi fi fi bari nañ fi ñun fi indi mo leen daan dimbali. de nga wax bu baax. bu baax ki ñu indi fi bari nañ fi ñun fi daan indi mo leen daan dimbali. di leen fayal ay avocat man ñaata detenu lama do lama do wax ma genn seen tour bi ma ci jël bi pour mu fayal leen ay avocat ñaata détenu la bu ma ko doon wax du ma fi jóge te détenu yëpp boo bëggee ma woo leen ñu def émission ak ñoom te yëpp dooroo leen fayal avocat pour ñu dimbali leen bàyyi leen ndax dañoo naroon sànku ci kaso bi amuñu avocat man loolu laa xam ci moom bi ma demee nag tey wax dëgg yàlla information bu ma la mën a wax lu dul lan toog nañ di déglu ki nga xam ne mooy mooy moo di procureur nga xam ne ndeysaan ku ko xam xam ko ci xarañte li muy liggéey ku ko xam-xam ne ku fonk li muy liggéey la ndax fonk ko at man ko at respecté ko at fonk doomu aadama yee tax ñu teg ko fa toog nañ ba déglu ko ba ngoon ngi jot ñu ni retour de parquet loolu nag mooy procureur ci boppam mooy jël ay décision ci moom bu ko dee bàyyi da koy bàyyi en tant que bu fekkee ne partie civile bi ñëw na waxuma nag ne partie civile bi bu bàyyee procureur day bàyyi déedéet procureur moom bu partie civil bàyyee yoon tamit mën na def liggéeyam waaye ñoo ngi ñaan li yoon liggéeyam boobu mu war a def ci moom muy nekk liggéey boo xamante ni ni liberté lay doon ci moom. fi mu ne daal da ngeen a bëgg mu génn dellu këram. na ki waaw parce que am na genre euh, am na am na am na yoo xam ne tey jii bu amee ñun dañoo war a mën a ñaan nit ki pour yoon bàyyi ko mu ñibbiwaat këram koo xam ne kilifa la mënu réer kenn xam nga mënu réer kenn bu ko yoon soxlaa mën nañ koo jëli nu mu gën a gaawee kon ñoo ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo ko muy perte civile bi di ki nga xam ne mooy di kilifa gi di procureur. bu fekkee ne partie civile bi ñëw na ne Doro mii bu ma joxee un millier un milliard yi wala bu ma joxee sept cent millions wala nangam barki Sëñ Tuubaa balaa jant so ñu dajaleel ko ko. Hmm, d'accord alors. Euh, ndax kaay wax la. son excellence président jàmmi réew mi du ko mos a seetaan. tey bu ne woon tak tak waali nangam nangam waali bu ko jaralee sax mu teel a këram génne xaalis génne Doro da koy def. d'accord incha allah alors euh, euh, chers internautes si vous venez de nous rejoindre ñu ngi ak toog ak ki nga xam moom mooy délégué Amar pour waxtaan ci. ka o